bu ñuy wax dëñ kumpa baaxul loolee ah, daanaka ki nga xam ni ah, mooy Marc Guy bokk ci moom mii di catalan nga xam ni daanaka tey ji doon na dëñ kumpa football ca Barcelone loolee nag def ta na ko daanaka bi ñu footballee lu toll ci juróom-ñett fukki minute wala juróom-ñaar fukki minute ak juróom-ñeent moom la dugg ci terrain boobu nga xam ni daanaka moo nekk fële ca équipe bi ñu doon footballal gone catalan yi nag ñi ngi doon dajeek Atlétique waaye match boobee mbir mi métti woon na trop ba gars yi dugaloon ah, bal yi nga xam ne amoon nañ ko bal yëpp gars yi wesaare nañ ko deseetun bal waaye saaw Félix ndeke bàyyi ko ci terrain bi du rëccute ay ginaar yu ñor xomb la jox ki nga xam ne daanaka mooy marque gi benn minute ginnaaw bi gone gi duggee ci terrain bi dañ ko googee la yër kër gi benn espace ngeen gis ko noonu fa la yollu ngar ci côté di joor ga dëpp beeg du për ñi gi la def daanaka góol bi nga xam ne moo taxawoon ci camp yi atlet gi gi góol boobee dañu ko yaali maanaam bar ba ca xal bal ba ca xarante ñaari tànk yi la jaar Barcelone maa ngi leen ko doon wax démb bu ngeen ko moytuwul benn poñ dina ko def ak Real Madrid te ak Real Madrid classico Barcelone nen mën ngeen faa xaar bu fekkente ni goney merengue yi góorgóorlu bu baax a baax Barcelone bu ca amee victoire dana ñëw dana rawee li nga xam ne mooy Real Madrid ñaari poñ bu fekkee danoo témboo nag fi mu toll nii goney Barcelone yi dañu yor seen cëggal guy kon gars yi ngeen bàyyi xel loolee bu a baax waaye marque dugg na ca match boobee daanaka fi mu toll nii bànneex bi nga xam ni dana ko fanaanoo bànneex boobee dana nekk bu mucc ayib ci li nga xam ni mooy catalan yi ndax match ba gars yi ni ko doon waxee bu ñu digg mi la terrain bi dëgg démb la woon gars yi doxuñu benn yoon ndax gars yi li leen tee dox mooy gone atlétique yi danoo préparé pour mën a tëj côté yëpp roq-roqaan yi nga xam ne ay ñan yoo xam ne waa Barcelone xamoon nañ ko ñan la yooyee fun man di jaar daanaka duñ leen fa bàyyil ma xos waaye ay xatiir goo xam ne gu tar la leen leen fee bàyyil olympique de marseille wala olympique de lyon mi ngi ci guddi gu bët sotagul zéro victoire six défaite maanaam am na yoon benn défaite yoo xam ne yebbi na ko juróom ñeenti match yi mu mujjee olympique de yi daanaka rëccu na lu doon duggaate ci championnat France waaye nag rëccu du am benn yoon danañu gën a góorgóorlu